ñun yu bëri yoo xamante ne daanaka tey génnul euh, télé ki rajo yoo xam ne tey euh, liggéeyuñu ndaxte euh, dañoo jàpp ne Euh, liñ leen di teg ci réew mii di réewum Sénégal dafa euh, metti moo tax ñu xëy ne tey dañuy def une journée euh, sans presse waaye ñoom fa ñu ko waxee am na ñenn ñoo xamante ne ànduñu ci la ñu wax ku ci mel ni groupe Walfadjri moom génn na nee na une journée sans presse waroo koo def ndaxte booy laaj ak ak yelleef bi nga xam ne moom nga amee munoo koo def ci droit bi nga xamante ne sénégalais bi am na ko mu nekk droit à l'information nga privé leen ko ba pare di wax li nga xamante ne mooy sa ak ak yelleef tey ku ci mel ni Ayoba Faye euh, je vais moom ñëw na euh, ci yenn yi nga xamante ne euh, amaana amoon na fi te gisuñu cette presse bi nga xamante ne ñoo ngi def une journée sans presse ñu ngi koy amal tey nee na ci bés boo xamante ci fan yee ci ginnaaw am na ñoo xam ne ñu ngi leen doon tëj. Mm. une certaine presse ñu leen di gazé nangu fi licence bu Walfadjri te yëfi Pape Alé daanaka bu mu nekk ci diggante dund ak euh, dee am na ci benn journaliste boo xamante ne ab sa aan la moom euh, daanaka dañu ko dugal ci benn euh, fourgon ci place de la nation daal di koy duma ba mu perdre connaissance ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne cité na ko comme exemple ne xewoon na fi te taxul ñu décréter une journée sans presse lan moo ko wundu tey am na ñu ne c'est un faux combat pour les patrons de presse tant que laaluñu seen poche. du ñu euh, mu nekk loo xamante ne euh, doy na waar ñu bàyyi euh, ñii ku teg sa kàddu. Mhm. mu des rek moyen de lutte comme mhm. syndicaliste ku ci ne. Mhm. na ngay xeexee ak moyens yi nga ciy utiliser li nga ci jublu rek mooy am objectif bi. ñu dégg la wala ñu lijjanti mbir yi su su dee ni ñoom li ñu def tey ci foofu lañ ko inscrire mooy ne yuuxu nañ jaar nañ fu ne mënuñu léegi li ñu am mooy moyen bi. ngir wane ni d'accord ñu xanaa ñu sañ leen koo nangul. Ah, waaw bu leen neexee kañ am nañu sañ-sañ bu leen neexee moom ñu def journée sans presse waaye ndax askan bi dana ko yëg loolay problème askan bi ñu bugg yuuxu ñu wàllu leen ndax dana ko dégg du ko dégg afoon lay def xam nga lu tax. lu tax bi ñuy rey askan boobu ñoom ñoo doon teg miti mbalax da nga ko fàtte. lu sax sax. askan bi ñu bëgg tey ñu wuyu leen. bi ñu leen di rey ci tali bi ñu naan leen wax leen ñoom ñoo doon teg mbalax ak micro defal micro trottoir laat sénégalais ndax sentir nañ journée sans presse bi tey. waaye askan woowu ñu daan jënd journaux yi Cheikh Ousmane. ah di déglu télé yeeg rajo yi. jënd pour xool des seeni sos la rek xam nga des nga xam ne diw day sos mais nga déglu sosam lan la. Hmm. kenn du ko yëg ci askan bi xam nga man déjà dafa am fu ma bëggoon ñu taxaw. ayca journée sans presse xam bi ñuy téye Ousmane Sonko ci fii ci Stèle Mermoz bi préfet bi naan gazé leen presse yëpp la presse waroon yeewu na du ñu def journée sans na dañuy def journée sans presse. ndax baatu gazé bi. waaw loolu ndaw gazé leen ñoom ñëpp la presse et tout am na ay élément presse yu ñu fi jàpp ci manifestation yi malmené leen dóor leen lacrymogène buntu kër Ousmane Sonko. Mhm. femme boobu nekk Sénégal moom lañ dóoroon ca lii mu xam. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fan la presse ba nekkoon au compte da nga doon dégg ñu naan ñun duñ jël en charge ñu amul quatre xaw ma lan ak lan. quatre presse. xam nga lii dëgg. presse amul problème. ay lobby ñoo téye presse ñoo am problème ak nguur gi mais presse amul problème ak nguur gi. lobby yi téye en otage presse ñoo am problème ak nguur gi muy ces patrons de presse nga xam ne c'est des nantis seen yoon newul ci journalistes yi seen condition de travail. convoqué wuñ foon benn journaliste mu jël car tata di wuy ji convocation. Mm. pendant ce directeur am di ko fa wax. pendant ce temps lu directeur am yor 4-4 zéro kilomètre. ay kii wër naan la sama groupe du produit dama nekk en faillite chaque chaque finale Ligue des mu dem seetaani match toog loge. bi avion aller retour ñetti fan seetaani match wala ñaari fan ñëw. kenn ci ñoom nekkul ci jafe-jafe xam nga yéen presse lu ngeen waroon def benn ndëpp général na keccet loxo lobby yi leen téye yéen récupérer seen presse. ay lobby waaw muy ñii di def pression ñi nga xam dañ ñëw investir ci presse def ko moyen de pression envers les politique seen pression wa doxatul moo tax ñu bëgg téye en otage presse bi. mais mais mais Cheikh Ousmane tey patron de presse yi bu ñu téyee seen loxo ndax dina baax ci journaliste bi ndax le journaliste sans groupe de presse wala moyen bi nga xamante ne moom la mën a exprimer woo mm-hmm. ndax dina mën a def euh, li nga xamante ne mooy liggéeyam léegi nag est que nga foog ne un patron de presse responsable dana téye loxoom bu sóoree impact bi nekk ci ginnaaw bu ko état xojee nag déedéet état xoju ko moom moo xoj bopp ci nan mooy nan ngeen en fait fi mu toll nii boobu su ngeen bàyyee xel. Mhm. patron de presse yi dañu bëgg gëmloo ni am na entreprise yu ay nit investir pour perte état di leen subventionné pour ñu exister. Mhm. entreprise bu dee ci subvention rek nga pare dund tëjal yow luy sa njëriñ man bu dee entreprise yi kuñ ci subventionné wu munoo fonctionné waaye yaa xayti nañ tëj ñoom ñëpp. droit à l'info. droit à l'info mooy teg pression à l'état. loolay droit à l'information. déet waxuma loolu de boo nee bu ñëpp tëjee laa ne. <laughs> askan wi ko bëgg a jot nag bëgg jot ci xibaar yi dañu war a. assurer leen dana am ñu dul tëj du bu fekkee ni tamit tey dañuy sukkandiku ci convention yi te ñu nemmeeku benn absence. ci mm-hmm. loi euh, sur la publicité. Mm-hmm. tamit ndax dina yemb ci ñoom. sans ah, sans les conventions. xam nga ngu xam nga nabu lan moo dul dëgg entreprise warul sukkandiku ci convention. maam piqûre nit ki pour mu fonctionner dañ koy piqûre pour mu taxaw mais kooku nekkatul nit ku wér nii dala mel maanaam man nit ku wér laa mais pour ma taxaw foog ñu piqûre moom ma taxaw xam nga kon kooku wératul. Ah, léeg-léeg am na feebar yu koy laaj nag. waaw danaa feebar. Mm-hmm. kon entreprise yi dañoo feebar. léegi ban intérêt lañ ci am. su dee ni lii yëpp jàpp ngeen ni ay kusum kasang laa wérul rek. non seen gañ non seen pour la seen dil moo nekk di yàqu. depuis un temps. presse vache laitière la état vache maam vache laitière la ci ay entreprise de presse da ngay teg pression ñu compal la nga noppi da ngay def titre une bu dëgër ñu compal la nga noppi léegi nag yooyu moo taxawtul ñi daan teg pression boobu di comp mënatuñ comp ñu daw yuuxu ne ñu ngi bëgg a dee presse bi bëggul dee ñoom la seen dil di bëgg a dee waaw léegi nag loolu danañ ci def lu ne danañ seeti sëriñ si danañ def blog parce que benn mafia la rek seen maanaam seen deal moo nekk en seen business. loo bëgg wax da ngay digg président de la république fi mu taxaw mu taxaw fa bu mu leen recevoir. bu mu leen teewlu. de na leen recevoir na tëj bunt yëpp non non na tijji bunt yi. soxlawul waxtaan no enquête. Ah. na waxtaan ak ñoom. waaye bu mu nangu sedda ci seen pression wax na leen ko moom il sait pas chanter. ah ndax waxtaan ak kii. waaw foofu sax a gën a am DG yi dee dem ñu defaral la moratoire waaw yow foofu nga amel demal yaa xëyta ñu defaral la moratoire nga fay bu ñu leen baal loolay dëgg mais pourquoi entreprise de presse yi bëgg am benn statut spécial ci dëkk bi laa bëgg a xam yow da ci d'accord te man li ma jaaxal ñoom ñëpp dañuy toog ci antenne bi reconnaître ni def na détournement d'objectif mais liñ koy justifier mooy moom laay fonctionner boo ko deful dëkk bu siire kaso ngay fanaan mais nag président war euh, war na war na dalal les patrons de presse ñu bañ a fàtte ni euh, la presse mooy euh, quatrième pouvoir. Babacar Ba woo na leen ci forum justiciable nee na ñëw leen waxtaan ak état bi nañ dem waxtaan pression bi moorul yoon chantage bi ñu bëgg a def moorul yoon. état ubbeekuwul ci loolu. mais parce que niñ ko jéemee non niñ ko jéemee attention niñ ko jéemee convention des jeunes reporters la dalal de dalalu les patrons waaw ñoo ñooy vrai journalistes yi ñoo ñooy mëq lacrymogène yi ñoo ñooy dem garraf yi ñoo ñooy nekk ci naaj ñoo ñi it bu patron de presse yi téye seen loxo ñoom dootuñu mën a mëkk ci naañ fi dootuñu naan ci lacrymogène moom dëgg la donc te duñ fa yeeku weer donc nañ ko waxtaane mhm. patron de presse yi lañ def groupe dem waxtaane mhm. jaar ci voie légale bi lii kenn la de bind nañ lettre de président Diomaye ñan ñoo bind léegi rek seetloo benn affaire ñi jiite coow li récemment dafa am fu ñu féete dëkk bi di tàq. fana ci nguur bi lii de mooy dëgg boo déggee coow li ñi koy riir ñëpp dafa am fu ñu féete woon politiquement bi dëkk bi di yëngu mooy presse bi xawoon boycotté Pastef boo xoolee ak opposition bi mun nañ ne moo nekkoon presse pouvoir bi. après su pouvoir bi su pouvoir bi changé ñu ne ñoom ñi ngi bëgg a dee est-ce que ñoom boo xaalisu askan bi lañ daan dunde hmm. ah loolu laaj la de boo xoolee ñi daan teg mikeeg sabar bi nit ñi di dee ñoo am problème tey naan la amatul lu ñu yu kenn xamul lii la de <laughs> est-ce que du teg leen mikeeg sabar ñu compal leen ngeen noppi la woon comp jee fi newatul rek saa yi comp ji enveloppe kaki yi daan jóge pale moo fi newatul rek waaw mooy samp gi rek ak une commande yi mu yow da nga daan yeewu xala ñu ñu bind la benn nit bu nekk biir appartement na la toj na réew mi politiquement moo xew moom la ñëpp àndal génnut këram <laughs> non bref am na ci gis mosoo ko teg ba xoolal toj na réew mi toj na réew mi une yëpp tiitre nañ ko te mosoo ko teg ba deew presse bii yàgg naa leen wax na leen war ngeen def ndëpp ndëpp gee ngi nii nag dab na leen hmm. ndax ñoom waruñu bu ñu def euh, bu ñu defoon dëpp tey euh, bal ma rek balaa ngay ñëw bu defoon dëpp tey ndax bu am ñoo xamante ne dañ seppeeku seppeekul seen seen seen seen seen bopp ndaxte am na lu ministre bi doon doon waajal euh, pour ñenn ñi ñëw déclaré wu ne ñoom ci kayit yu wóor la tegu ngir mën a samp seenu group ndax bu ñu ko defoon rek dina am ñoo xam ne nañ seppeeku te du soxla peut-être euh, coow li yëpp di ci am. waaw loolu moom gëm naa ne foofu loolu mooy but final bi gis nga. Mhm. nabu bu ñu waxtaanee rek. Mhm. presse bi dañ ko war a assainir. loolu dëgg presse ni mu taxawee tey jii gàcce la sax par rapport ak ñi ko ñi ko sant ñoom Sidy Lamine ñoom Babacar Touré. Mhm. ñoom Mame Less Camara et autres ay grands yoo xam ne dañ jël seen dund yëpp jox ko presse jox ko le devoir d'informer dund ci lu ne xoqatal metti boobu la presse gëroon tumuranke boobu amoo foo ko waxee jaay leen doole nangu seen alal taal seen groupe de presse yónnee leen nervi ils on été dignes jusqu'à la fin souffrir mais en silence toujours taxaw taxawaayu askan bi mais presse bi fi nekk la kenn xamut lim doon tu te demandes après sax yow nii est-ce que presse lañ nan la Sénégal de tàqee ñuy rey doomi sénégalais yi ngay teg ay mbalax nan la réew mi di tàqee ngay teg ay mike après ëlbatiku na presse na sénégalais yooyu tey ñëw leen wallu ma mais sénégalais duñ leen wallu je suis désolé kon réalité moo leen. xam nga bu ñu demee ba presse bi na journée sans presse sénégalais yi di jubilé mais y problème. Mm. y' a problème journée sans presse sénégalais yi di jubilé y' a problème. sama njëkk sama xarit andi presse boppam. waaw <laughs> y' a problème quoi. en tout cas war nañu xoolaat seen bopp man dama gëm ne les journalistes. yi nga xam ne ñoo nekk ci koor bi war nañu waxtaan seen biir nu ñuy def ba tinkeeku ci lobby bi leen tënk. lobby bi nag bëriwul juróom benn nit leen xaw ma juróomi nit. Mm. ñoo te presse bi na leen ñoo am problème crypto personnel avec le pouvoir bu ko régler ci presse ah. lii kese la